ñu jàll ñaareelu jàngale bi ci taxawaayu saxaaba yi mooy Zeynab bint Jahsh xoolal Zeynab bint Jahsh wujj la woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii képp koo xam ni nekk nga ak wujj ci biir kër xew-xew yu mel nii am misaal a ngi nii boo jël xoolal Zeynab bint Jahsh moom mi nga xam ne yonent bi dafa toogoon ak saxaaba mu yàgg mu ni leen ki gën a gudd loxo ci yéen de su ma dee moo may njëkk a topp dégg ngeen wax ci maanaam kii njëkk a génn àddina ginnaaw yonent bi ci ay soxna muy ki gën a gudd loxo ki topp moom mooy ki gën a gudd loxo ñu jàppoon ni li mu ci nam moom muy guddaayub loxo nii fekk yonent bi lam ca nam moon mooy mën a saraxe mu ni Zeynab bint Jahsh moo ñu dàqoon a saraxe foofu ndax da doon liggéey pare di boole li muy liggéey ak li muy am ci yonent sa sam di ko saraxe mu ni moo tax bi yonent bi génnee àddina moo ci njëkk a topp ci ay soxnaam xoolal al jazaau min jinsi l amal maam kamata dina tuddaan loolu lépp lañ lay fay xoolal balaa ñoo wax lan la Zeynab di seedeel Aïcha ci xew-xew bi nañ njëkk a wax lan la ko Aïcha doon seedeel balaa xew-xew bi moo tax lii bépp jullit bu jigéen bu ne këram war na koo déglu ndax dañoo jàpp ni buñ nee fiir nga dégg ñu ne yaa Aïcha fiiroon na ñu jàpp ni fiiraangoo ga dalil lay nekk ci kenn ku ci nekk nga mel ni koo xam ni ku nanguwul dogal yàlla la ñu xool Aïcha moom ma leen wax moom dafa fiiroon nu mu doon def moom Aïcha mu ni wallahi gisuma jigéen ju gën a ragal yàlla gën a mën a sarax gën a mën a jokk mbokk gën a mën a gën a baax ci ndaw si nga xamante ni mooy Zeynab bint Jahsh xoolal bu jëm la mu di ko seedeel lii moom seedaloon na ko ko bu yàgg yàgg yàgg ba loolu amee mu ni te moom moo nekkoon kuy jiiranteeg man mbagg ci soxna yéen ñoo tolloon martaba ci niñ ko mën a waxee mu ni bi ko yonent bi laajee sallallahu alayhi wa sallam loo xam ci xew-xew bi mu ni ko man de li ma wirte woonu mooy damay sàmm sama làmmañ comme niñ ko waxee ci tàmbali waxtaan bi yépp yàlla dina la ko laaj yawmal qiyaama damay sàmm sama dégg damay sàmm sama gis awma lenn lu ma ko xamal lu dul lu baax ni nga ko xamale lu baax noonu laa ko xamale lu baax lii ñu lay wax du dëgg yonent bi bu ko gëm xoolal allahu akbar su fekkoon tey ci jamono bi ñuy dund la saa di nga gis ñemeñu yàlla nit ki dana ci yegg ba mën a ruux wala mu yëngal wala mu gësam kay laaj xalaat ngir rek mu gëm ko dëggal ko ngir kookee martabaam wàcc moom martabaam mën a yëkkatiku waaye ndeke yàlla mooy yëkkati ku ko soob waaye mooy wàcc tamit ku ko soob kon loolu bépp jigéen bu nekk ci kër ak dund ak koo xamante ni wujjam la wala ñoo xam ay wujjam lañ loolee bind la ñeen leen ci xew-xew yi bu tàbbee seen biir kër wala seen njaboot. ñetteelu taxawaay bi ci saxaaba yi mooy Usaama ibn Zayd Usaama moom la yéen sa salam gënoon a bëgg ci nit ñi mbindaan yi ne ci kër gi wala surga yi àggoon na ci ba ñu képp ku ma bëgg bëggaaleel Usaama mii saxaaba yi dañ koo xamoon ba. buñ masaan a am jafe-jafe ñemewuñoo dem ci yonent bi Usaama la ñuy yebal gis ngeen keroog ba jigéen ja sàccee jigéen ju tedd ba mu sàccee ñu ne kii de wax dëgg yàlla kenn warut a dagg loxoom kaañ dem ci wax ko Usaama mu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ dikkee wax ko Usaama Usaama dem keroog la yonent bi mer ba kanam gi xom mu ni ko ah yow da ngay dox sama digg def intervention ci loo xam ne àtteb yàlla la Usaama deltu gannaaw daal di jéggalu kon Usaama bi ko yonent bi laajee lan la wax mu ni ko ahlaka ya rasulallah ah Aïcha di ci sa njaboot la bokk mu ni ko wala naalamu illa xayran xamuñ ci moom lutul aw yiw amul lu ma ko xamal lutul yiw wax dëgg yàlla ba ma nekkee ci kër gi ba léegi musuma koo xamal lenn neti ci safaan loo xam ni mën nañ caa sukkandiku pour mën a gëm wax ji comme loolu amul nag bu yeboo nga xam ne li ñi ni wax dëgg bu ko gëm loolu moo nekkoon taxawaayu Usaama te it moo war a nekk nag taxawaayu jullit bu nekk ci mbokkum jullitam saa su tuuma tàbbee ci kawam wala ñu koy laaj xalaat ci loo xam ne lu bon la wala yu demee noonu ñeenteel bi mooy barira ahlu siyar am na ñuy wax ni barira la ñii ne du barira boo demee ci ibn al qayyim ci zadul maad mu ngi ci xay wax waaye su dul barira it ala kulli xaal nekkoon na ab jigéen daal ci kër ga boo xam ne ab jaam la loolu mu wér ndax buxaari wax nag buxaari sax barira la indi waaye nag comme loolu nekkul lu ñuy teel ci jamono bi ñu jàpp ne kon ndaw soosa la bi ko yonente bi laajee sallallahu alayhi wa sallam lan la wax munu yonent bi walladi baataka bilxaq maa raaytu alayha amran qat axmisuhu gayra annaha jaariya xalisatu sin tanaamu an ajidi ahliha fa tati daajina fa takulu wala fa tati daajina mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën naa ci ki la yónni ci dëgg muy yàlla ni gisuma lenn ci loo xam ni mën naa ko koo nëbbal muy ay ayib moom day Aïcha xawma ci moom dara loo xam ni day sikk sàkkaloo nit ki wala ma xam ci moom dara lu dul daal xam naa ni moom daal xale bu ndaw la boo xam ni xamul dara ba fañ doon ree ree ko ko fa bàyyi dana fa tëdd nelaw fa kon nag lii ñu lay wax du dëgg bu ko gëm lii moo war a nekk taxawaayu jullit bu jigéen bu nekk ci saa su déggee ay ayib ay musiba ci mbokkum jullitam mu weddi di weddi di weddi ba keroog mbir ma di sax su fekkee weddil na ko nag bañ saxal ni moom la lan moo war a nekk nag position su boobaa aha su boobaa nag position mooy mu jàppal ko ngant du yaa ko tay de da ngay dof doflu xamoon naa ko du bett bettuma woon di wax ay wax yoo xam ni kenn xamul waxi lu mu doon comme ni ñu koy defee tey suñu société yi waaye déedéet sa mbokkum julit la képp ku sàng sutura sa mbokkum julit yàlla dana la sàng sutura kuy nandal sa mbokkum julit yàlla dana la nandal ci déegu aljana yi ku solal sa mbokkum jullit yàlla na la solal ci coli aljana yi loolu xadis la bu wér sa position kon balaa muy sax mooy du dëgg du dëgg du dëgg ba keroog ngay xam ni dëgg la nga jàppal ko téeméeri ngant yoo xamul boo demee nangam boo demee nangam teyu ko de xam naa da koo réccu xam naa nangam jàppal ko ay ngant yu dul jeex soo ko mënee woo laay biir ku nga def ko lii mooy taxawaayu jullit ci mbokkum jullit waaye du di ko ŋàññi di ko xas xoolal rek keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di benn saxaaba njaaloo ñu koy caw ñu koy jam saxaaba yi ñii taxaw nan xamoon nañ ko dafa nangam yoon subhanallah bu leen dimbali seytaane ci seen mbokkum jullit tëj leen seen gémmiñ yi xoolal te kii lim def bàkkaar la waaye yonent bi ne bu leen dimbali seytaane ci seen mbokkum jullit tëj leen seen gémmiñ yi gars yi daal di noppi kon lii mooy taxawaayu jullit ginnaaw bu nekkee dëgg kon loolu mooy taxawaayu ndaw sax ñii ni bare la ñeen du moom wallahu aalam taxawaayu ali ibn abi talib léegi foofu danañ ci taxaw tuuti ndax ali position moom moo nekkoon yonent saa sallam kii daal ci sa jaboot la bokk jigéen ñu dul moom bari na liñ la wax bu la sonalee fase ko nga takk beneen jigéen li mu wax dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla li mu wax dara newu ci parce que jigéen ñi dul moom bari nañ su ko su ko su ko naree sonal ba fu mu toll di laaj nit ñi ay xalaat na ko fase mu takk keneen waaye nag lu mu nekk nekk dëgg position barab yu mel nii dañuy diggal jullit bi lu man ci moytu wax kàddu goo xam mën naa jur fitna ëllëg na ko def nga xam ngeen ni kàddu gii doonte diggante nday Aïcha ak Ali seen ginnaaw doonte ay mbir sax xew na ci yoo xamante ni foofu buntu boobu naa fi dimbali mbokk yi wax leen ni leen bi ñuy jàng ca daara ja benn téere bu tudd Risala bu Ibn Abi Zayd al-Xayrawaani bi ñu yegsee ba yegsi ci buntu boobu dafa wax ju am solo joo xam dinaa ko dénk sama bopp ci barab bii dénk leen ko. ba muy nit li xew-xew yi xew ci saxaaba yi seen xeex yeeg kii nang mu ni soo bëggee am jàmm wala imsaaku amma wala imsaaku amma shajara bay na la xewoon seen diggante maandu ca bul am koo cay faral di am koo cay mere ndax ñoom ñëpp yàlla seedal na leen aljana ba noppi da nga gis barab yu mel ni ku ci yegsi nga dem sax ba ku ci bëgg a ŋaañi kenn kii lim def du yoon dootul du yoon yow lu sa yoon moom du yoon jéggi na point bu yàgg comme niñ ko fa waxee woon ba dem na yàlla seedal na ko aljana yow xamugoo foo jëm moo tax mu ni wal imsaaku amma shajara baynahum maandul te tëj sa gémmiñ ca la xewoon seen diggante nettali ko nga jàll soo cay waaru nga waaru ca waaye bul ci am ci koo cay faral koo cay falak di ko ca folli ba mer di la ci jubi wala nga wax ci loo ci war ta wax moo tax wax ji alim na wax de dëgg la waaye am na leen nu mu doon waxee li wax dëgg yàlla doon na gën a rafet ndax yàlla mi ngi wax ni wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu baynahum yàlla mu ni bu dara desul lu dul wax yonent bi digalal sama jaam yi ni leen nañ wax wax yu rafet ndax kat seytaane day fo ci kàddu yi allahu akbar doomu day ñaata ci ay kàddu nga wax yoo xam ba nga koy wax wallahi jubluwoo ci woon yàq defar nga ci jublu woon amoon na yéene bu sell nga ci amoon ndeke ñàkk a settantal noo koy génne tax na jur na ci ay fitna loo xam ne réccu nga lu réccu ëpp moo tax yàlla mu ni wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan dina wax lu rafet ndax inna shaytaana yanzaxu baynahum shaytaan day focc seen diggante te day focc kàddu yi da ciy jaxase mën na cee def loo xam lu ëpp la kon képp koo xam ni doonte sax yow lii moo nekk sa position ci xew-xew bi booy wax waxal lu rafet balaa moo yegg ca kañ ko waxal mu mën a jur ak noonu képp seen diggante mu des su dee jëkkër nga ak jabar xew-xew bi mel nii fekk leen seen biir kër lan moo war a nekk seen taxawaay allahu akbar doomu ndey radiallahu an sahabati rasulillah koo ci xool rek da ngay jàpp ni moom xanaa amul keneen ku mel ni moom xew-xew bi ball di daw di ball di daw nit ñi di ci jot ba benn bis rek xew-xew bi ni dagaj kër abu ayub ak umu ayub abu ayub al ansaari moom mi nga xam moo dalaloon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonente bi gàddaay rek ñu tëju ci biir néeg bi abu ayub ni ko loo ci xam umu ayub ni ko loo ci xam ni ko li ma ci xam kay yomb na mooy du dëgg yaag aysa ku gën abu ayub ni ko yaag aysa ku gën mu ni ko aysa ma gën fuuf mu ni ko est ce que yow di nga def lu mel ni mu ni ko déedéet mu ni ko yow doo ko def ki la gën di ko def abu ayub ni ko yow yaag yonent bi ku gën mu ni ko yonent moom a gën fuuf sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko jeex na comme yonent bi moo la gën te yow yàlla nattawul loolu yàlla di ko nattoo yonent bi ñuy njaaloo ci kaw soxnaam loolu du dëgg mu ni dëgg kenn du dëgg ba aaya wàcc na ci ñoom ñaar aaya bi yàlla mu ni lawla is sami'tuhu qultu maa yakunu lana an natakallama bi hada subhanaka hada buhtaanun azim aaya bi mi ngi wàcc ñaar ñoom ba ngeen ko déggee lan moo tee kenn ku nekk ci yéen muy sell ñeel na yàlla yellul ñuy wax ci ñii ndax lii xobu xël la ci gémmiñu tef lii de ay nar yu fës la ay kàcc la du dëgg aay bi ci ñoom ñaar la wàccoon kon doomu ndey waxtaanukaay yi ndax jëkkër ak jabar ñoo gën a jege léeg-léeg xew-xew ni daga ci seen biir kër waaye saa bu yegsee taxawaayu ñaari saxaaba yu yàlla gërëm ñu ngi nii mu des juróom-ñaareelu tomb bi ci taxawaayu saxaaba yi muy ña nga xam tàbbi woon nañ ca wax ca muy Hassan Himna bint Jahsh ak Mistah ak ñenn ci saxaaba yi nga xam ni juum nañ ba njuumte gi yóbbee leen la wax ja doon am ñoom maam daal mel na ñi ko ko gëmoon daal laa mën a wax gëmoon nañ ko daal ci misaal waaye nag damay taxaw foofu benn taxaw bu am solo boo xam ni maa ngi la ko toxarale ci siiru alamin nubala soo demee ci siyar al imaamu zahabi ba muy tafsir al mistax ca mujjantal ga wax dafa wax ju am solo ba mu nitilee xew-xew bi ni mu tàbbee ci kaw mistax ba pare daf ni héy sama mbokkum jullit yow mi nga xamante nii yaay wax ay kàddu te it am na ñum ca nam sax ñeneen ñi maam yow miy wax am na ñun ñoom dama chiaay la ci nam ñoom ñi nga xam ne dañuy profité ci occasion di ci xas xam ne chiaay dañuy xas yaay Aïcha di ko saaga di wax lii dëgg la waaye ñooñee defe naa alquran moo leen di tontu maanaam ñooñee lañ saxal jërul tontu ndax génn nañ ci islam wax dëgg yàlla képp ku mën a taxaw nga ŋàññal yaay Aïcha nga dëggal lii kon weddi nga alquran wax dëgg kon jëroo tontu képp koo xam ne taxaw nga gëm xew-xew bii ni dëgg la Safwaan doon na njaaloog Aïcha dama ni jërul tontu yow ndax génn nga ci islam ba pare da ngaa war a tuubaat min jadidin duggaat ci islam ndax weddi nga alquran ndax alquran moo du dëgg yow ngay dëgg la kon kay ko weddi alquran ndax di yàlla génn nga ci islam xalaas mu ni na nga moytu ba bul ŋàññi waajoo xam ni teewoon na badr yàlla gërëm na ko mu defoon ab bàkkaar boo xam ne yàlla baal na ko ca bam pare kon gis nga moom mistax mi bokk na ci ñi ñu ca woon xam ngeen dina feeñ ci jeexintalu qissa bi ci aay yi ñuy tafsir nga gis ni am na ñoo xam dañ leen a caw def leen jald comme ni nga xam ne la ko alquran jàngale waaye daal ñoom daal li ma la mën a wax mooy leçon lañ nekk ibra la naa mooy la leen daloon bañ ñoo dal ci xew-xew bu ñëw mooy ñu wax ca wala ñu gëm ca wala ñu ñaaw ca ba ëllëg fekk du dëgg su ko defee ñu cay rus waaye nañ téye suñu làmmañ téye suñu sàmm suñu nopp ak suñu dégg bu ko defee bàyyi ba yàlla subhanahu wa taala leeral la war a leer lu ñu xam ci lu rafet ñu wax ko lu ñu xam ci lu ñaaw nañ ca noppi ba pare téye suñu bopp lii mooy position jullit kon ñii ñoo ña nga xamante ni ñoom la fitna ja tàbbi woon ci seen kaw doonte nag ñoom saxaaba yi ñii dañoo àggoon ci di ko gëm rek waaye nag ka sox ka sos mbir ma moom mooy Abdullah ibn Ubay ibn Salul naafiq boobu nga xam ne moom yàlla baalu ko mukk te aayee njéggali taxuloon mu wàcc noonu la ko Ibn Kathir waxee ci tafsiram li ñuy jeexalee mooy fawaidu tarbawiya mustambata min hadihi al qissa ay faida yoo xam ne day jëm ci wàllu yar jullit ñi donte nag su ma yemoon fii rek wax dëgg yàlla liñ jot a wax doy na sëkk ci ay faida yar ngir kenn ku ci nekk doy looloo la pour ñibbi ngir jàng ci waaye pour gën a jariñ pour gën a yaatal ñu ubbiwaat bunt boo xam mooy bunt bu mujj mooy fawaid tarbawiya mustambata min hadi al qissa fayda yoo xam ne dafay jëm ci wàllu jullit bi mën a yar boppam wala jullit ñi mën a yar seen bopp yuñ mën a génnee ci qissa bi mën musaf bi ci njëkk mooy ab jullit fu mu mën a toll ci ak mbaax ak ragal yàlla ak dëggu ak sellal ak njub ak mbaax sori lu bon jege lu baax lu mu ci am ci ay daraja daraja na bàyyi xel ni bis dina ñëw yàlla mën na koo natt ci dund gi muy dund loolu mooy njàngale bi gën a am solo bu ñu war a jàng ci xissa bi loo baax baax baax loo sori sori mbon loo jege jege mbaax na nga bàyyi xel ni bis mën naa ñëw yàlla nattoo la ci loo xam ne dañ koy teg ci sab der te du nekk dëgg ndax yonent bi saa salaam mu ne ki gën a metti ay natt mooy yonent yi ñi ci topp mooy ñi ci topp ku topp ci ku gën a suufe topp te ba jullit bi daal xaalis bu ko xaalis bu wér yéen ci muy nit ci fu mu toll ci diineem rek noonu la ko yàlla nattoo su nekkee ku dëgër la ci diineem allahu akbar est-ce que ki dëgër ci diineem la ko xel doon nangu mooy yàlla bañ koo natt ahan kay waaye yéen ci mu nit ki dëgër ci diineem ba mel ni montagne kooku la yàlla yi gën a natt ndax dëgëreet imaanam la ko yàlla nattoo natt bu tar la yàlla teg ci kawam lii misaal la ci waaye ki ngëm yàlla am feebar wala ki ngëm yàlla am faible kooku natt bu ñàkk sol la ko yàlla natt ngir nit ki natt yooyee dana dem ba bis biy génn àddina dafay set wecc ci ay bàkkaar ndax natt yooyee dafay wàññi ay bàkkaaram natt yi nag booba ak yii di ñëw ak yiñ nar a dund ñun yal na yàlla boole ñu jàmmal yàlla mi ngi ci nam mooy li yamiz allahu alxabisa min altayib walsadiqa min alkaadib walmumina min almunafiq ngir yàlla man yàlla moom xam na ba pare alimu alimul xayb ku xam kumpa la waaye ngir ñun mu wan ñu ñu mën a ràññee alxabisa min altayib ñi bon te salte te nekk ci suñu biir ak ñi baax te teey te nekk ci suñu biir ngir yàlla man noo wan ñu mën a ràññee ñi gëm ak ñi gëmut ngir yàlla man noo wan tamit ñi dëggu ak ñi dëgguwut loolee borom bi namm na ko ci nattu yi muy teg suñuy kaw borom baa ngi wax ci beneen aaya maam mi ngi wax ni alif lam mim axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkadibin alif lam mim mën nit ñi dañoo njort ni borom bi dana leen bàyyi rek ku nekk ni gëm na dëggu na mi ngi góorgóorlu ci sunna mbir mi dëggu na ci moom mu nekk ay waxi kese rek waxi làmmeñ nga xam ni koo ko wax mu gëm ko yàlla mooy da ngeen defee da ngeen di wax loolu rek ma bàyyi leen noonu rek ku nekk dem ak sa buumuk bopp déedéet yàlla mooy dama leen di fitnaal comme ni ma fitnaalee woon yeneen fi jiitu woon ngir wala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkadibin ngir yàlla ràññatle nit ñi wan leen ñu mën a xam ñi dëggu ak ñi nga xam dañuy fen ndax ñii fenkat mooy ñooñee nga xam ni ida uziya fi llah jaala fitnata annaasi ka adabillah wala in jaa nasru min rabbika la yaqulanna inna kunna maakum awalaysa allahu bi aalam bima fi suduri alaalamin ñooñee nga xam ne daal su nattu dikkee dañuy rëfëfi jaay seen diine sax xaj na ca jël nattu bi mel ni ku ku yenu àddina su fekkee nag xéewal moo ñëw dal ci kaw julli ñi nga dégg ñu naan ñun ak yéen ñoo ko bokk commencé di intéressé wu di bokk bokkul te bu nattu dikkee ñu écarté wu dem seen yoon yàlla subhana taala mu ni awalaysa allahu bi aalam bima su fi suduri alaalamin ndax moom da ngeen defee ni yàlla daa xamul li nekk ci biir dënnu nit ñi wala yaalaman allahu alladina amanu yàlla dana xammetle ràññetle wan leen ñi gëm wala yaalaman al munafiqin dana ràññale ñi nga xamante ni ñooy ay naafiq ñaareelu jàngale bi ci fawaid yi ñu mën a génne ci wàllu tarbiya moom mooy lan moo war a nekk taxawaayu jullit su fekkente ni xew-xew yu mel nii ñëw na mooy mu sàmm ab déggam fuñ koy nitilee bu mu fa taxaw sax di ko déglu ndax seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel kon wax yooyee bul ko abal sab nopp mukk mu di ko dégg wa basarahu sàmmal sab gis saa soo gisee loo xam ni ma ngay xaw a ñaaw sa jot damal sab gis te nga dem sa yoon su boobaa moo lay gën a muccal balaa gis baa yónnee ab leetar ci xol xol bay fas ci lu marul fas wa lisaana sàmmal sab làmmañ wala yaxuudu fihi ma alxaaidin bul xuus rek ànd ak xuuskat yi di waxte li ngay wax amoo ci xujja amoo ci bayina amoo ci burhaan ëllëg gàcc dala ci fekk yàlla mu ni yaa ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba in fatabayanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum nadimin aay bi comme dañuy boros pour bëgg a gaawal soo demee suratul xujuraat defoon nañ ci waxtaan ci fawaid njariñ yiñ mën a génne ci suratul xujuraat boo demee ci kaset boobu dama nga ca xew-xew ba taxoon ma nga ca kon dañ koy romb rek jàll jërul baamtu ndax waxtu waaye rek yàlla mu ni in jaakum faasiqun bi naba aji génn ak topp ab waay ab kàccoor ab nit bu leen dikkalee indi leen leen information waay waay fata ba yenu na ngeen teey na ngeen dal bala ngaa wax wala ngay jëf wala ngay fas an tusibu qawman bi jahaala bala ngeen a dal ci kaw aw nit te fekk da ngeen koo teg ci kaw ak réer ak ñàkk xam ak njort ak foog fa tusbixu ala ma faaltum naadimin su ngeen demee ba xam ne loolu du dëgg ngeen mujj di réccu ngeen mujj di réccu ndax waa ji ba ko yonent bi yabalee ci histoire am ñëwee mu ni ñooñee kat wet nañ yàlla yonent bi yabal Xaalid mu dem ba di leen waaj a engagé pour rey leen rek mu taxaw di déglu dégg ñuy noot mu laaj ngeen ñu ni ko lu xew muy dama leen di xeex xeex xeex xeex seeg yéen aluñ jote mu ni diw nee na yéen da ngeen a lànk bañ koo jox azaka mu ni subhaanallah ñun ñi nga xam ne dañoo yàkkamti ba dañoo génne azaka yi taxaw di ko xaar pour mu ñëw kon kooku waxul dëgg aay bi daal di wàcc kon lii ma war a nekk taxawaay jullit mooy lu ñëwati rek teeyal daal su fekkee luy nar a la jël sam xel jugal nga dem nga laaj soo laajee boo amee lu la leer xëyrul nga jàpp sa mor sa njàmb su lëntee génne ko nga sànni ko ca kàmb ga ñuy sànni njortu yaag foog ya nga continuer wóyal sa doxalin loolu ñaareelu jàngale la ñetteelu jàngale mooy mbon goo xam ni noon bii di ab naafiq mbon na ko mu nekk ci biir jullit doomu nday noon bi gën a yées gannaaw seetaane mooy ab naafiq ab yéefar sax naafiq ko gën a bon xam nga lu tax naafiq moom wax na la mooy kan nee na la man jullit wax maam yéefar wax na la mooy kan yéefar nee na la gëw ma gëw ma la gëw ma li nga gëm gëw ma yàlla gëw ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku kon noppalu nga ci moom bokku leen sax mbuus bi ngeen di bokk bokku leen yoon wa ngeen di jaar waaye naafiq li tax mu bon mooy day ñëw bokk ci yow di sol li ngay sol di wax li ngay wax di jëfe sunna yi ngay jëfe fekk na boobee mi ngi denc ci xolam loo xam ni musiba la ju rëy bis bu ko génnee rek tàkkal dëkk bi xoolal Abdullah ibn Ubay ibn Salul nekk ci biir jullit ñi nekk ñu koy compter ci jullit ñi yàq yi mu yàq bii benn la ci de waaye bu nu yàlla defalee tawfiq bunt bu jeex ci téere bi amaan na mën nañoo jël ay faida yu bari soo xoolee la rayo Osman loxoom la jàpp bàyyi ko la rayo Ali ibn Abi Talib wa kadalika li indi fitna ya tàkkoon ci jamono yo Osman ba daaneel xilaafatul islamiyya ci jamono yooyee yëpp ay mbir la yoo xamante ni mucc ci woon xoolal allahu akbar benn bis saxaaba yi dañoo dikk ne yonent saa sallam bàyyi ñu rey ko mu dee léegi ñu noppal yonent bi bu ko kenn rey ñu ni ko lu tax mu ni moom ci ñun lay fa woote woo suñ ko reyee lan la jub àddina bi wax yonent bi de mi ngi rey gaa yi bokk ci ñoom kon kenn dootu tuub seeti allahu akbar xoola fi muy xoolee abdullah ibni abdillahi ibni ubay ibni salul kooku mooy doomu kii te kooku gëmoon yàlla la gis nga keroog bi saar bi wàccee muy suutul munaafiqun bu naan la in rajaana ila al madina te xeex xeex bi la ko doon waxee suñ delloo mi din la yuxrijanna al aazzu minha al adal ñun ñu tedd ñi danañ génn ñu torox ñu dëkk ba ba loolu amee doom ji da koo dégg dégg information ñu naan dañ koy rey ak duñ ko rey ak yu demee noonu mu ngàbbu jaaseem ne yonent bi su fekkee dañ kaa nar a rey bàyyil ban ma rey sama baay ndax soo joxee keneen mu rey ko damay ragal seytaane liggéey su ma tasee teg moom xalaat ni kii moo rey sama baay ma mer ca daal di koy song allahu akbar mu ni man ma rey ko moo gën a noppale ndax su ma ko reyee jeex na yonent bi ni ko déel bu ko rey bàyyi ko xoolal saxaaba yi niñ doon dundee ridwanullah alayhim ajmain xoolal kon abdullah ibn uways lim lim liggéey ak mbonte yu mel nii kon lii ab njàngale la boo xam ne jar naa ceey ci képp koo xam ne maanaam ab jullit la boo xam ne dafay feeñalu ngëm rek waaye nekk lu dëggu ci moom yàlla mu ni ida raaytahum boo leen gisee tooji bu ko aji saa moom seen jëmm yi da lay yéem dañuy aj seen i tubay buñ dee ay góor lañ mën nañoo wàcc seen i muuraay ba muy diree ko bu dee ay jigéen lañ dañuy yar seen i sikki dañuy socc dañuy mel ni ngeen mel seeni jëmm sax da leen di yéem ndax da ngaan kii nu mën a defee lii wa in yaqulu tasma li qawlihim suy wax dañ ko déglu dafay mën a ràbb ay kaddu yu jub te nekk ay naraki fen ba da nga yéemu da ngay jàpp ne kii li muy wax dëgg la yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim aaya bu wàcc na day tiit na xam ne lim nekk du dëgg yuuxu gum dégg rek mi ngi mel ni kuy sàcc rek yuuxu gum dégg da defee ne moom la ñuy waxal moo tax yàlla son tala mu ne yaxsabuuna kulla sayxatin alayhim lu wàcc rek dañu def seen kaw la ñuy këpp humul adow ñi ñooy seen i noonu nag faxdaruhum moytu leen xaatalahum allahu annaa yufakun yal na yàlla alak leen fu ñu mën a jëm kon loolu moo lay wan ni mbon na lool ab naafiq sax ci biir ay julit ñeenteelu jàngale mooy adabu saxaaba wa xurmatuhum li rasulillahi sallallahu alayhi wa azwaji orma ju saxaaba yi amoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam ak ay soxnaam xoolal keroog bi yàlla wàccee aaya mu ni laa tarfaw aswaataka fawqa sawti nabi Abubakar ak Omar ñoom is ku ci waat ni wallahi du ma waxati yéen ci mukk lu dul damay sëkk ca nopp yi du ma wax mukk ca kaw yàlla mu ne bu leen yëkkati ci seeni kàddu ci kàddu yonent bi saa ba muy sut kàddu yonent saa sallam nga gis saxaaba boo xam ne day jooy ba bëgg a dee ndax yàlla daf ko mayoon kàddoom dafa diisoon muy saabit ibn qays ibn shammaam bi aaya boobu wàcce suratul xujuraat dafa tëju néegam dafa jooy a jooy ba kanam ji furi ndax rek moom bokkuñu woon ak ñun ndax ñun aaya bu wàcc da ngay dégg ñu naan boo demee diw lay waxal boo demee di diw ba fàtte sa bopp waaye moom dañu man mu sama baat bi diis mii aw ma lu muy sikki sàkk ci ni aaya bi ci man lay wàcc di ko jooy di ko jooy ba yonent bi dégg ko mu yabal lay ay gaay ñu dem xool biñ fekkee loolu moo ko te yonent bi ne moo yéen dem leen nee leen ko na ñëw kooku ci nit aljana la bokk yàlla wax na ma ko ba pare ibni abbas mu ni dañ daan ko xool di xam ni kon kii di jégg séppar ñi koy kàddu yi génn ci nitu aljana la war a bokk nii la saxaaba yi meloon noonu lañ ormaalee woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ay soxnaam même aj bi yonent bi génnee àddina soxna yonent bi ñenn ci ñoom doon aj da ngay gis saxaaba yi buñ leen gisaan sax duñ leen ñimee sigg di leen xool am orma ci ñoom xoolal Safwa fa mu ñëw wax dëgg yàlla mu Aïcha loo fiy def yow nore ba tare loolu est ce que dara nekk na du dara néew ci bu ko laajoon wax dëgg yàlla du dara waaye àll boobee nga xam ni benn góor ak benn jigéen seytaane man faa liggéey ñaareel moom mooy mu jàppee soxna yonent bi yaayam wax dëgg yàlla day noo dul doxaleeg sa yaay bul ko doxaleeg soxna yonent ndax wa azwaajuhu ummahatukum soxna yonent bi seeni yaay lañ kon am orma ci ñoom lool Aïcha mu ni wallahi maa kallamani bi kalima waxut ak man benn baat gayra istirjaayi fañ jóge ba fiñ yegsi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kot la wax tegaatu ci baat ba ni mu yegsee kooku benn la xoolal àll bu sori ba gajj bu sori boobu ni mu soree safwaan di wommat gileem gi di dox ak tànkam xoolal coono boobu ngir rek xelam xalaatu ko mukk mu yéeg ci gileem gi di ci yéegandoo soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon saxaaba yi nii lañ ormaale woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nii lañ ormaale woon tamit ay dëkkandoom ak ay soxnaam kon yàlla mi ngi koy wax annabiyu awla bil muminin min anfusihim wa azwaju ummahatuhum mi ngi suratul ahzab juróomeelu njàngale bi ñu ciy jàngale ci wàllu yar tamit moom mooy muskila ab jafe-jafe su amee ci diggante ñaari way dencante jëkkër ak jabar lu mu tar tar tar tar tar bu jigéen ji génn kër jëkkëram lu dul dafa tàggoowal dafa am jigéen lu jar a bàyyi xel loolu tey jigéen ñi sëy yëpp war nañ koo dégg da ngay gis ku xulóog jëkkëram sax ngàbbu ay bagaasam génn dem mais dafay fay wala dafay def lu muy def yonent bi saa sallam mu ni képp ku génn sa kër jëkkër te fekk amoo ci ndigal ca génn ga ne la wóor ni yaa ngi ci rëbbam yàlla ba keroog ngay delsi wala mu jéggal la moom sa jëkkër ak lu la mën a génn nag donte yaa am dëgg amal ndigal doog a génn loolu ay xadis yu wéri ñëw na ci yu bari moo tax yaay Aïcha mu tàggu yonent bi ba yonent bi jox ko ndigal ak li problème bi garaaw garaaw yonent bi mel ni ku ko yëgatut lu jaar ci turam seen malade bi nu mu def yooyu yëpp wax dëgg yàlla bu doon jamono bi da ngay dang faaletu naa def sama yoon waaye déedéet mooy naa ko laaj ndigal ma jox ko ndigal loolu moom mooy islam ci gaawal juróomeelu juróom-benneelu jàngale bi moom mooy xaadisa bii nag day tontu ñi ëppal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba di ko jox martaba bu ëpp wala daa xam kumpa xam ngeen ñeneen ñi dañuy tagg yoon di wax ay wax yoo xam ni kenn mësu koo dégg wa inna min juudika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lawxi wal qalam gis ngeen loolu ñuy way di ko way yonent bi tabe gi mu tabe moom moo moom àddina ak wujjëm allahu akbar àddina wujjëm mooy lan alaxira waaye yonent bi maa ngi laaj billahi aleykum su moomee àddina moom alaxira kon lu yàlla dese xoolal wax ci su yonent bi moomee àddina moom alaxira lan la yàlla dese léegi mu ni ko wa min ulumika ilmu lawxi wal qalam xam-xam bi nga xam peeg na la yàlla denc ca lawxul mahfuud peeg na li yàlla war a bind ci xalam kon wax dëgg yàlla kay yàlla xamatul dara kon su booba taala allahu amma yaquluuna uluwan kabira kon yéen sa sal nit kese la waaye nag bul ni nit kese la ba tax nga wàcce ko nag jox ko marta bu mu ëppal boo xam war na koo jéggi nit la comme nit ñi day juum comme ni nit ñi juumee firnde ba dana ñëw ci suñ dars bii di ñëw buñ jógee ci baabu sujudu sahwi danañ firndeel lii may wax insha allah ndax bu fekkoon yonent bi xam na kumpa waay bi ñu waxee xew-xew bi lan mooy jar muy laaj dëgg la du dëgg ba muy yàq ab xolam bu xamoon kumpa kay danaan du dëgg mu jeex waaye xamul kumpa xamul ndax dëgg loolu dëgg kon fiihi taxqiqu bashariyati nabii sallallahu alayhi wa sallam wa annahu la ya'lamu shay'an min ilmi al-ghaybi illa ma 'allamahu allah qala allahu ta'ala قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء nee leen xoolal nee leen nee leen bu la xawma de da nga naan leen bañ dégg nga ni leen xawma dara ci kumpa xawma lenn ci loo xamante ni lu jëm ci kumpa la mënaluma sama bopp lenn ci njariñ wala ci ay lor su ma xamoon kumpa danaa jiital lu bari ci ay mbaax lu may sofeel ëllëg te it su ma xamoon kumpa lu bon la sama ko wax dëgg yàlla ndax balaa ñëw ma protéger protéger ko mu def est-ce que lii lu bon xew-xew bi ankay ci kum dal ci yonent bi kon su xamoon kumpa wa ma masani suu kon su xamoon kumpa danaan kon bu waa musiba dal sama kaw kon in ana illa nadirun wa bashirun li qawmi yuminun man daal nekkuma lu dul jaam boo xam damay xuppee ko waar ñeen ñoo xam ne gëm nañ yàlla xalaas kon loolu mooy juróom benn lu jàngale bi juróom ñaareelu jàngale bi ci wàllu tarbiya lu ñu mën a génne ci xew-xew ba léegi mooy julit saa su ay musiba dikkee yu mel nii ay natt na dimbali koo diisoo ak ay mbokk julitam yonent bi moo la gën fuuf gën laa baax gën laa ragal yàlla gën laa am expérience dund te yàlla mu nekk fa bi ma rahmati min allahi linta lahum walaw kunta faddan garida alqalbi nam faddu min xawli yërmande ji nga am ci ñoom moo tax ñu di la jege nga di ñu di la sibooru waaye boo nekkoon ku ñàng ku fas kanamam kenn du la ñeme dañ lay daw kon nag faafa anhum baal leen buñ defetee njuum ca wa shawirhum fi l amr mbir bu dikkatee na nga diisoog ñoom fa ida azam fa ida azamta fa tawakkal ala allah boo dogoon nga doog a wàkkilu ci yàlla ñaareel bi yàlla mi ngi wax wa amruhum shura baynakum jullit ñi kat seeni mbir ay diisoo la ci seen biir kon loolu dafay wara ne jullit bi saa su mbir dikkatee bett ko bu mu jël ay décision bu mu jël ay xalaat waaye leen diisoog ay mbokki jullitam su ko defee luñ ko wax mu istixaara ñaan yàlla yàlla dimbali subhanahu wa taala juróom-ñetteel bi moom muy musiba joo xam ne fitna daf koy yàq yàlla mu ne wattaqu fitna laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa moytu leen fitna ndax fitna bu dikkee du yem ci bopp borom xoolal ñaata fitna naroon a judd ñaata fitna xasaan safaan xaañ na ko ci aw sa xasraj xaw tuuti kon ñu xeex ci ali ibn abi talib ak aïcha seen diggante ay ñagas-ñagas dox fa boo ko toppee du jeex xoolal lii lépp ngir benn fitna boo xam ne mu ngi judd ci seen biir yàlla mu ne moytu leen fitna ndax fitna bi mu ni ku baaxoon la waaye keroog daa mel ni rek maanaam lim far ca fee tax na mu commencé wax moo tax yàlla sontal di yar nit ñi naan wala yajrimannakum shana'an kunu maanaam kunu qawamina lillah shuhada bil qisti wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la taadilu iadiluhu aqrabu lit taqwa yàlla mu ni seede leen li nga xamante ni mooy ak dëgg ak maanut nekk ñu taxaw ngir yàlla subhanahu wa taala bu mu leen een aw nit bu mu leen yóbbee mukk ngeen ñàkk a maandu ba tax ngeen di wax lu ngeen war a wax iadilu maandu leen huwa aqrabu lit taqwa looloo gën a jege ragal yàlla kon loolu des na ko jàngee ci bind bi ndekki nit mën naa soppee te fekk soppeeku wallaay fitna ko yóbbu waaye ku baax la fukkeel bi moom mooy ndekkee wàkkilu ci yàlla moom mooy ngànnaayu julit yàlla mu ne wa yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu moo tax nday Aysa mu wàkkilu ci yàlla delloo ko mbir yi yàlla daal di koy wàcce ay ay daal di koy xittali comme ni ko yàlla sontal di waxee mooy yatawak maam wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ak wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhrajan ku ragal yàlla yàlla indil la ay génn génn ci jafe-jafe yi nga nekk fukkeel beeg benn moom mooy maanaam ndeke julit bi nga xamante nii dafa gëm yàlla subhanahu wa taala daa war a nekk ko fen waqaafan li ayatillah lu mu ko mer jàpp jàpp jàpp lu mu jël jël ay décision buñ ko tegalee aaya rek mu deltu gannaaw allahu akbar doomu day xoolal tey li ñuy dund da ngay gis koo xam ne dafay nekk ci li mu nekk mer jàpp ko wala mu jël ab décision matt ci ngaw ci moom kese kenn àndu ci moom mu dëgër ci bopp kenn mënu ko cee génne nga jàngal koy aaya mu dëgër nga jàngal koy xadis mu dëgër lii may wax defe naa ay mbokk ci jotaay mën nañ maa seede ci li may wax lu ñu xam la kon lii moo lay wan ni maanaam julit bi yar bi saxaaba yi amoon démb wax dëgg yàlla des na ma dañoo war a nekk waqaafiina li kitaabillah suñ jëlee décision alquran ñëw génn ñu ca wala sunna ñëw génn ci nañ ca génn xool Abubakar yemul ci ñun mistax du ma la dundal waaye dafa waat ni du ma la dundal ci waaye bi yàlla wàccee moo ko yenul ay bagaasam ak Abubakar ni mu ni mu amee martaba kon ndekki julit bi lu mu ŋànk bu teg si dikkee ni ko yàbbee daa war a yàbbi lii moom moo war a nekk tamit taxawaay jullit ci tomb boobu fukkeel beeg ñaar moom mooy ndekki jullit bi mbokkam mooy jullit jullit moo ko war a jàppale bu dee neex moo ko war a jàppale bu dee naqari waaye julliti tey comme ay weñ ci ni ma ko mën a misaale wala ñenn ci ñoom bokk saa sa nga leen di gis mooy samay tooy ci la ñuy ñëw dal mooy jamono ja ngay am ay mbégte ki bànneex ñu mën ko bokk ak yow waaye saa soowee kon nga xam ne gisuñu luñ fa jariñal dootuñ ñëwati loolu xam ngeen ko ma xam ko waaye ndaw sii day deful loolu ba mu déggee xew-xew yi mu naqari ko lool metti ko lool amul lum ci man ndax mënu ko weddi dafa waaxu ba ca day Aysa toog ca moom di ko jooyle ndax loolu la ko mën a kon lii moom muy jullit su dee metti maa ngi ak yow waaye su dee naqar tamit maa ngi ànd ak yow niki noonu maanaam fukkeel beeg ñett moom mooy maanaam nit ki dafa war di dal ak teey ak seetantal li nga xamante ni moom mooy xabaar su fekkee dikkal na ko ba mu wóor ko ndax wér na wala wérul su ko defee mu doog a jël loo xamante ni moom lay def ab décision comme ni nga xam noonu la ko yonent bi defee woon sallallahu alayhi wa sallam ba aaya daal di wàcc ci li nga xamante ni moom mooy xew-xew ba ndax kat soo ci ëppalee wax ca loo ca warul wax su boobaa ëllëg mën ngaa réccu te soo réccoo maanaam yaa ko yóbbee ka nga xamante ni moom mooy sa bopp bu ko defee ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale maanaam di wane ni maanaam teey mi ngi bàyyikoo ci yàlla subhanahu wa taala waaye yàkkam ci kat mi ngi bàyyikoo ci li nga xamante ni moom mooy cheytaan moo tax yàlla aay yii moo yem wàcce woon di setal nday Aïcha borom bi subhanahu wa taala mu ni inna alladina jaau bil ifk ñooñee nga xamante ni ñoom ñoo indi duur woowee nar woowee kàcc yooyee nga xamante ni moom lañ tegoon ci nday Aïcha radiallahu anha ñi ko xex ñi ko fent ñi ko wasaare ñooñee kat osbatun minkum mbooloo lañ moo xam ne ci seen biir lañ bokk ay yéefar indi wuñ ko de ay juif indi wuñ ko de waaye ci seen biir lañ bokk loolaay naa feq ga nag laa taxsabuhu charran lakum yéen ñooñ Aboubacar bu leen jàpp ni mukk musiba la ci seen kaw ju tàbbi seen kaw déedéet bal huwa xayrun lakum yiw la gu tàbbi ci seen kaw kay moo tax Usayd ibnu Xudayr doon na wax nday Aïcha ni ko yow daal ba yàlla wàccee tiim comme niñ ko waxoon buntub tiim maa hiya bi awali barakatikum ya ala Ababacar ba yàlla wàccee aaya tiim Usayd ibnu Xudayr ni ko lii de ñëkkul barke bu yàlla njëkk a wàcc ci yéen ñaata ci ay musiba tàbbi ci seen kaw yàlla wàcce lu leen suturaal mooy karab bi saxaaba yi xas yaay Aïcha wala Abubakar di xas yaay Aïcha ndax li mu téele jullit ñi bañ tardé julli yàlla wàcce aaya ni bis bu ngeen amatul ndox su boobaa na ngeen tiim faf mu daal di yomb moo tax mu ni ko maa hiya bi awali barakatikum ya ala Ababakar yàlla mu ni bu leen jàpp mukk ni musiba la tàbbi ci seen kaw bal huwa xayrun lakum lii day yiw la wu tàbbi ci seen kaw yéen nañ Abubakar li kulli mri'in kenn ku nekk ca ña wax ca monte ga ña ca génn seen kàddu maktasaba min al ismi lam lam lu toll ni lam ca wax rek lu toll noonu lay am ci ay bàkkaar ndax jullit ñi am na ñoo xam xuus nañ ca def ci ay bàkkaar waaye nag wax dëgg yàlla tuub nañ yàlla jéggal leen kon bu leen ko jàppee waaye wallazi tawalla kibra ki nga xamante ni moom moo jël mbir ma di ko kof-kofal ak di ko duufal ak di ko wasaar ak di ko ñaawal ne xam ngeen ni mbir mën na ñëw rafet waaye nañ koy waxee nañ koy wasaaree ñaawal ko ba ku ko xool mu ñaaw mu ne walladi tawalla kibrahu ka tasaare wax ji ñaawal ko ba nit ñi jot ba ñi fakkastalu fakkastalu ca yàlla mu ne lahu adabun azim kooku day na ko wër ni bu dee yàlla dina ko mbugal mbugal mu tar allahu akbar gis ngeen waa ji bi mu dee doomam daa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yonente bi dimbali ma ngir yàlla sama baay la de donte xam naa ne naafiq la dimbali ma nga ñëw julleeku maam dimbali ma nga jox ma sa yére yi ngay sol allahu akbar xoolal yonente saa sallam naafiq la ak li mu yàq lépp ci islam yonente bi suma mu ni ko demal nga sàngee ko xoolal li mu yàq ni mu bonee nga xam ne bu doon kenn ci ñun tey haine bi mu koy jëlal bul xam ne mu toll yonente bi sumi mum mi jox ko ni ko demal nga sàngee ko ko ñu suul ko bàyyaam la bon na lool waaye bëgg na ko wax dëgg yàlla mu dem dem dem xelam dalu mu ni ko yonente bi dimbali ma na nga ñëw nga jullee ko yàlla mu ni ko ah déedéet wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabri ñooñu kay moom bul ci jiiteeti kenn xabroom sax ba fa sax tànk tege nag loolu moom am ndigal la nag yonente bi tere dem moo tax borom xam-xam ñu ne bu ko yàlla waxuloon dara dana dem jullee ko ak xool li mu nekk nekk naafiq waaye nag sa war a la jëm de ndax yàlla mu ne walladi tawalla kibra lahu adabun lahu adabun azim dana am bugal mu tar borom bi mu ni benn ci yar yi lawla is samiatumu lan mooy ndayu ba ngeen déggee xew-xew mu tàbbi seen nopp danna al muminuuna wal muminat bi anfusihim xayran lan moo tee julit nam war a njortalee mbokkum julitam njort bu rafet yéen ngeen njort ci nday Aïcha njort bu rafet jàpp ne lii du dëgg xayran mu nekk aw yiwu ngeen jot wa qaalu lan moo tee ngeen wax ni hada ifkun mubin lii de ay nar la yu fës jërul gëm jërul yàq liggéey lan moo tee ba xew-xew ba dikkee ngeen wax loolu te loolu moo war a nekk taxawaay julit borom bi mu ni lawla jaau alayhi bi arbaati shuhada ñoom sax su fekkoon dañoo indi ñeenti seede yu wane ni kenn ku ci nekk ci ñeenti yee gis na Aïcha muy njaaloog Safwaan su boobaa ngeen mën a gëm ndax tuuma ci islam balaa ñoo caw kenn da ngay indi ñeenti seede boo ko indul yow ma ko wax lañu war a duma fa id lam yatu bi shuhada suñu indiwul ay seede fa ulaika inda allahi humul kaadibuun ñooñee wax wax ji ñooy ay fenkat ndax tuuma boo ko tegee ci kaw nit ci islam da ngay indi ñeenti seede moo tax lu dangereux nga naan gis naan diw ak diw ñuy njaalo gis nga boo ko waxee ci islam te indiwoo ñeenti seede yow la ñuy duma yow gis naa ko muy njaalo ñeenti nit nañ ci teg bët comme yow mu nekk ñeenti nit yoo xam ne maam ñeenti nit ak yow ak ñeent yoo xam ne ay seeda la ñuy doon suñ dikkee kenn ku nekk ni maa ci teg sama bët su ma waa ñu doog a jàpp waa ji caw ko waaye gis nga même bu fekkoon li nga wax dëgg la te lu woon ñeenti seede kenn du ko caw bu dee islaam ay àtte yàlla mu ne lan moo ciy ñoon di ñeenti seede fa id lam yatu bi shuhada suñu andiwul ay seede lañ fa ulaika inda allahi humul kaadibun ñoom ñooy fenkat yi ñoom ñoo ko wax borom bi ne walaw la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu su dul woon ak yërmande yàlla ak ay ngëneelam fi dunia wal axira ci àddina ak alaxira la massakum yàlla dana wàcc ci seen kaw fii ma afaktum ci xuus di ngeen xuus ci wax ji adab fiihi adabun adim mbugal mu tar mu metti mu dal ci seen kaw id talaqawnahu jamono bi ngeen di wasar wasaree wax ji yaay ay solme ci buxaari moom dana jàng istaliquunahu mooy jamono ji ngeen di fen di ko wasaare istaliquunahu ak istalaqawnahu jamono bi ngeen di fen wax ji di ko wasaare di ko tasaare bi alsinatikum ci seen i làmmiñ wa taquluuna ngeen di wax bi afwaahikum ci seen gémmiñ yi maa laysa lakum bihi ilmu loo xam ne amu leen ci benn xam-xam wóoru leen dégg rek ngeen ci am wa taxsabuunahu hayyinan ngeen di njort ni wax ji lu ndaw la wa huwa inda allahi azim fekk lu ngande la ci yàlla subhanahu wa taala moo tax yéen sasala mu ni benn waaye dana génne benn kàddu boo xam ne du ca bàyyi xel kàddu googee dana ko tàbbal ci biir safara muy daanu juróom-ñaar fukki nawet xadisu xadis la bu wér dina wax benn kàddu bàyyiwu ci xel kàddu boo xam ni buy tàbbi ci safara juróom-ñaar fukki nawet dana ko tàbbi te kàddu googu moo ko ko yóbbee yàlla mu ne wa taxsabunahu hayyinan ngeen defee ni li ngeen di wax lu ndaw la wa huwa inda allahi azim fekk lu rëy la ci yàlla ndax yàlla mer na ci subhanahu wa taala lawla is samiatuhu lan mooy ndeyu ba ngeen déggee xew-xew bi qultum da ngeen wax ni maa yakunu lana yellul ci ñun warul ci ñun an natakallama bi hada lii ñu ci génne suñu gémmiñ ndax xobu xël la ci gémmiñ wu tef subhanaka tudd nañ sa sell yow yàlla hada buhtaanu azim lii ay fen la bëgguñu ko sax dégg yàlla mu ne loolu moo waroon nekk seen taxawaay yàlla mu ne yaidukum allah yàlla mi ngi leen di waa di leen xupp di leen tëkku di leen tiital an taudu ngir bañ a delloo ci li mislihi lu mel nii abadan ba faw bu mu leen dalat yar bu rëy bu dal ci seen kaw ngi nii boo xam ne yàlla mu ne bu mu leen dalat in kuntum muminin su nekkee ñu gëm yàlla ngeen kon mooy wane ne yàlla baal na subhanahu wa taala ña ko defoon ca bokkoon ci saxaaba yëpp naafiq yi nag abdullah ibne ubay ibne salul ak ñoom àndaloon yàlla baalu leen dañuy dugg sawar insha allah comme yàlla ni mu ko seedee leen borom bi mu ni wa yubayinu llahu lakum al ayat yàlla mi ngi leen di leeral aay wallahu alimun hakim borom bi aji xam la waaye ku xereñ la subhanallahi al azim xoolal yàlla subhanahu wa taala aji xam la borom bi seedeel Aïcha ni ku set la ku xam la ndax bu xamul woon la Safwaan ak Aïcha nekkee ca àll ba kon du ko seedeel waaye kenn amu ci xam-xam ndax borom bi kon alim moo seede waaye xakim ku xereñ la su xew-xew bi amoon rek yàlla wàcce aaya affaire bi day neex day yomb ba mu ëpp waaye nag foog yàlla bàyyi weer jibril du wàcc yonent bi jaaxle jullit ñi jaaxle ñëpp sonn bu ko defee loolu mu nekk bind boo xam ni ëllëg dafa yar ñëpp kon xakim ku xereñ la moom yàlla subhanahu wa taala borom bi mu ni inna alladina yuhibbuna gaa ñi bëgg an tachia alfahisha mbonte di wasaaroo fi alladina amanu ci ñi gëm yàlla ñoo xam ne li leen neex rek mooy créer ay mbir yoo xam ne indi fitna ci jullit ñi lahum adabun alim ñooñ dina am bël mu metti mu tar fi dunia wal axira fii ci àddina ak ci àlaxira fii ci àddina mooy boo ko defee nga feeñ danañ nga caw yari islam soo feeñut ñu xam la jullit ñi nañ la jàmb alaxira boo demee yàlla dina la mu gën wallahu yaalam borom bi de mooy aji xam wa antum la taalamun xamu leen tus lu dul luñ leen xamal wala fadl walaw laa fadlullah aleykum wa rahmatu su dul woon ak ngëneel yàlla ak yërmandeem kon de musiba dana tàbbi ci seen kaw moo tax wa anna allah sa borom yàlla raufun ku am cofeel la ku am ñeewante la rahim ku am yërmande la yaa ayuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa tattabiu xutuwaati cheytaan lii na nekk mbir leçon bu rëy ci yéen ba bu leen toppati waxi cheytaane cheytaane waxul dëgg waaye yàq na xel yàq na diggante njortu na la lu dul dëgg ba ngay xuus te def ci ay bàkkaar yoo xam ne ëllëg da nga koy réccu kon bu leen toppati fexee seytaane ak ay mooy yàllaam ak yu demee noonu wa man yattabi xutuwaati seytaan ku sàggan ba topp fexee seytaane ak ay yoonam ay saawam fa innahu yamuru bilfahshaai wal munkar du la digal lu dul lu bon ak lu ñaaw du la wax loo mukk lu baax walaw laa fadlullahi alaykum wa rahmatu bu duloon ak yërmande yàlla ak ngëneelam ma zaka minkum min ahadin amul kuy sell ci kanamu yàlla subhanahu wa taala walakin allaha yudakki man yasha borom bi mooy sellal ba kanam ku ko sopp wallahu samiun alim borom bi aji dégg la xam na lañ doon wax lu mu doon waaye alim ku xam la xam na lañ doon wax ndax dëgg la wala du dëgg wala yatali bu mu gëñati mukk ulul fadli minkum ñi am ay ngëneel ak ay pouvoir ak doole ci yéen wasaa am ay yaatu yaatu ci wàllu alal di giñ naan ay yutu ulil qurba dootuñ joxati ñu jege ñaale yi wal masaakin ak ñi ñàkk ñi wal muhaajirin ak ñi gàddaay ñëw ni giñ dootuma la joxati wal yaafu jéggal leen baale leen wal yasfaxu na nga baale nga jéggale alaa tuhibuuna xanaa da ngeen a bëggul an yaxfir allahu lakum seen borom yàlla jéggal leen baal leen comme ni ngeen di jéggalee baal leen aboubacar daw daal di yenn di waaj ay bagage am indiwaat kon yàlla subhanahu wa taala mu ne su ngeen bëggee yàlla baal leen da ngeen di baale yàlla baal leen borom bi mu ni wallahu gafurun rahim borom bi jéggalaakoon la waaye baalaatakon la ci képp koo xamante ni ko def bakkaar la borom bi mu ni inna alladina gaa ñi nga xam ne yarmuuna almuxsanaati algafilaati almuminat ñi sànni julit ñi gëm yàlla yi ñi sangewuñu ay mbir yoo xam ni ay narlaaki fen lu'inu fi dunia wal axira yàlla rëbb na leen fii ci àddina rëbb na leen fële ci alaxira wa lahum adabun adim nañu wóor ni am nañ mbugal mu tar yowma alqiyama yowma tashhadu alayhim alsinatuhum bis bi nga xamante ni seeni làmmiñ day seede fen yañ doon fen wa aydihim seeni loxo di seede lañ doon def ci ay bàkkaar ci loxo wa arjuluhum seeni tànk di seede bima kaanu yaamaluun lañ doon jëf borom bi mu ne yowma idin bisub keroog yuwaffihim allahu ci leen yàlla di fay diinahum alxaq seen xisaab ba nga xam mooy digab dëgg ba wa yaalamuuna keroog la ñuy xam ni ann allaha naka digab yàlla day huwa alxaqul mubin mooy digub dëgg bi waaye mooy diggu leer kon nag alxabisaatu lilxabisin lu bon de kenn du ko yeyoo lu dul ku bon ku bon ci góor kenn du ko yeyoo ku dul ku bon ci jigéen ku bon ci jigéen kenn du ko yeyoo lu dul ku bon ci góor lu bon ci ay wax du génnee ci lu dul làmmiñu ku bon ci góor wala ci jigéen alxabisaatu lilxabisin walxabisuuna lilxabisaat waltayibaatu liltayibin waltayibuuna liltayibaat ñu baax ñi dëgg dëgg dëgg dëgg ci jigéen ñi ñu baax ñi ci góor ñoo leen yeyoo ñu baax ñi ci góor ñi ñu baax ñi ci jigéen ñoo leen yeyoo lu baax du génne ci lu dul kii mi ñu ko baax waaye yàlla mu ne ulaayika ñooñu ngeen doon tuumaal mooy waa kër ñoom Aïcha mubarrauuna ñu set wecc lañ allahu akbar lii mooy ayatul baraa mubarrauuna set nañ wecc mimma yaquluun ci li ngeen di wax te it kat nag lahum ñeel na leen magfiratun njéggal wa rizqun karim ak wërsëgu yaatoo yaatu kon loolu moom moo nekkoon aay yi nga xam ni moom la yàlla wàcce woon ci xaadisa bi kon ci gàttal nu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala maanaam liñ jot a dégg mu nekk lu muy def barke def ci leer bañ mën koo jëriñoo ñu mën ci saagar suñu bopp di ñaan yàlla subhanahu wa taala fitna yu mel nii mu musal nu ci mbaa bu mënul ñàkk ba tàbbi ci suñu kawit mu may ñu dal ak bakkan comme ni mu ko mayee woon ñenn ci saxaaba yi nga xamante ni amoon nañu dal ba wax dëgg yàlla bañ ci génnee génnee waa lañ ci ak gàcce ñuy ñaax suñu bopp di ñaax mbokk yi nii xew-xew yu mel nii maanaam yàlla dafay wax ne inna fi qasasihim la ibra ñooñu jiitu woon day te yàlla di ñu royloo ñooñee seenam nit le ak waar lañ ci war a jëlee ñu jàng ci ay bind def ciy seetantal kenn ku ci nekk yaa gën a xam sabab ndax baril insaan nafsi basira ñàkkul ni man mi wax ak yéen ku nekk am na point boo gisee sa bopp ci biir waxtaan bi fa nga gis sa bopp soo demee na nga ca natt sa bopp nga yar ci sa bopp te nga xam ni maanaam doomu aadama bu nekk ëllëg yàlla dina ko xisaab ci ay cëram ak ay waxam ak ay déggam saa su xew-xew jugatee ay musiba ay fitna sàmmal sa làmmañ sàmmal sa dégg sàmmal sa gis sàmmal sa tànk jàpp sa mor sa njàmbur soo xamee lu baax waxal soo xamul noppil loolu moo gën a jur fit moo gën a jur la nga xamante ni moom mooy jàmm kon lépp lu ci jub loolee mu ngi bàyyi ko ci borom bi subhanahu wa taala ñu ngi ko koy santee falul hamdu wal minna lu ci dëng ci ñun ñi la bàyyi ko ak ci cheytaane nekkuloon sunu jubluwaay wa sallallahu wa sallam ala alhabibi muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain